jër ngeen jëf yéen ñi seetaan si Sénégal 7 TV Sénégal 7 point com ñu ngi leen di sant bu baax a baax si teewlu bi nga xam ne kon yéen ngi teewlu Sénégal 7 waxtu wi jàppale ne ñu ngi fi nga xam ni moom mooy si tribunal mu Ndakaaru aljuma euh, juróom-benn fan si weeru septembre si atum 2024 gannaaw convocation bi nga xam ni kon daal nañ koy euh, convoqué euh, ki nga xam ni nag moom mooy commissaire Cheikhna Keita bi nga xam ni kon nag tey jii dañ ko convoqué waat gannaaw sax bañ ko woolu woon si euh, mois août bi nga xam ni kon moom la ñu génn euh, bis si nag ñu amaat beneen xabaar boo xam ni ñeel wàllum euh, convocation commissaire Keita bi nga xam ni kon ba ñu amee xabaar gi Euh, dañu def lu dul nag déplacé wu fi nga xam ne mooy si diwaanu tribunal ñu taxaw kenn koo xam ne ab jege ñaarem ñoom ñaar ñu bokk nag ab euh, langum politique euh, su ko defee nag mu fas yéene dikk ak ñun si circonstances yi yan anam lañ ko convoqué ak lan moo ñeel li nga xam ne mooy convocation bi su ko defee ñu dëgtaleen ko si Sénégal 7 TV si TV fi nga xam ne moom mooy fii si diwaanu tribunal kilifa gi maa ngi lay nuyu ma bàyyi la nga présenté wu d'abord jërëjëf maa ngi tudd Amadou Moustapha Gaye nekk secrétaire politique bu force dooleel askan bi force mooy front organisé pour la république la citoyenneté la la citoyenneté et l'éthique dooleel askan bi voilà. d'accord euh, ni ñu ko waxee si xabaar yi euh, actuellement nii euh, ñu ngi fi nga xam ne mooy tribunal convocation commissaire Keita bi ndax mën nga see dikkaat. waaw en fait démb la ñu toog sama kër sax la ñu nekkoon nekk ci préparation wu marche bi nga xam ne tey. planifié woon nañ ko pour def ko ak euh, jàngat décision bi nga xam ne moom la préfet dakaar jël ci lañ ko wooyee ci la ko le nouveau directeur de la DIC wooyee pour lui signifier que dañ ko soxla tey à partir de 9 heures noonu la noonu la noonu la affaire bi nekkee en branle voilà au dé bon au début man sama bopp sax euh, je pensais que ni. Euh, du lu jàmp loo xam ni war na mën a ñëw léegi léegi léegi léegi parce que déjà moom tey amoon na ay charges familiales yoo xam ni waroon na ko remplir ndax doomam dafa nekk fële extérieur am am doom mu war ko ngénte euh, yónnee ko xaalis pour mu jëndal ko xar comme ni ñuy def ak ñëpp ni ñuy def seen papa yi pour mu tuddal ko doomam maanaam demain muy samedi donc kenn nekkul këram fële ci njaayloo moom moo waroon dem jënd xar bi ma ne ko nag am nga ngànt ba pare yaa ngi def organiser benn marche Euh, comme yow euh, yàlla def nga ni yaa ngi doon liggéey ci yow takk nga woon nekk commissaire de police su fekkee ni lii am na normalement war nga mën a waxtaan ak ñoom pour ñu mañ la bàyyi ba lëndi nga doog a dem wuy ji mu ni nag mu ni ma bon loolu daal euh, il va voir quoi mais ñu dem ba tey ci suba mu wan ma daal ni ma vraiment il faut que ma ma dem jëndi affaire bi parce que ki ma yaakaaroon ni li nga ma doon wax démb noonu lay def parce que ki ma yaakaaroon ni dana ma mën a jëndal affaire bi euh, gisuma ko mu dem ci loolu man ma dem ci marché bi dem jullee ji Massalikul Jinaan voilà ak tout ce qui s'est passé la bas ma toog ba marché bi di waaj a jeex ma woo ma ni ma euh, man de il faut que ma dem parce que ñoom ils insistent pour que ma ñëw ma ñëw wuy si euh, noonu laa ànd ak moom pexe ba localiser ko daal di ànd ak moom daal di ñëw. Euh, ñu ñëw nag bi ñu ñëwee ba léegi euh, woo na ma léegi wax ma ni ma euh, le procureur moom moo ko soxla enquêteurs yi wax nañoo ak moom ba pare mais au finish daal li ñu li nga xam ne moom la ñuy xaar fi mu nekk nii c'est que ñu yóbbu ko ci auprès du procureur auprès du par dans le au parquet waaw procureur di ko fa xaar. mu ne nii commissaire mu ngi si mi ngi ci. non non non nekkul ci cave mi ngi nekk ci bureau enquêteur ba la nekk. ñu ngi koy ñu dañ ko mu ngi mu ngi si cave bi donc loolu aussi ban information. Ah, man de ci bureau laa ko fekk. gisaguma ko benn yoon mu génn ci bureau ba te maa ngi taxaw janoog bunt bi quoi. donc euh, nekkul ci nekkul ci cave peut-être que après xëy na loolu la ñuy def ñoom euh, je ne sais pas euh, mais mu nekk loo xam ne daal lu ñu jaaxal la quoi ah, dafa mel ni acharnement la daal sur sa personne. te gisuñu raison yu war a mën a tax ñuy acharné wu ci moom beneen raison bu dul euh, une volonté de le museler une volonté de lui de lui de de de de faire qu'il ne parle plus te loolu c'est c'est vraiment penn perdue c'est impossible mënul nekk parce que dañu nekk ci réew moo xam ni réewu démocratie la le commissaire Keita saagawul kenn offensé wul kenn taalul këru kenn santul kenn mu taal kër këru kenn ah ñi ko fi doon def sax tey ah kenn mësu leen woo kenn mësu leen wax dara ci ndax loolu. moom deful lu dul assumer euh, assurer li nga xam ni moom la ko yoon may mu koy assumer en tant que sénégalais en tant que citoyen sénégalais mooy am point de vue di ko exprimer ñëpp di ko dégg am lu nga xam ne àndu ci d'accord ci mu koy wax ñëpp di ko dégg ci kaw njëkk ak teraanga nag di nga xamee ni noonu la ñu yare muy démocratie ñu xam ne loolu rek la ñu xam mais si aujourd'hui nag man dañu bëgg euh, moom mu bañ a wax parce que ñoom certainement <laughs> ils se disent que le commissaire Keïta parce que c'est quelqu'un bu nga xam ni il est vraiment structuré ses ses arguments sont des yoo xam ni ku ko dégg da ngay dox ci mbedd mi sax les gens dañuy agglutiné ci moom di ko nuyu di ko ziyaare ah malgré certaines personnes qui disent du mal de lui mais ñëpp xam nañu commissaire Keïta c'est une idole dans ce pays voilà donc bu ñu bëggee noppiloo tamit bokk na si kàddu si nga xam ne koo gàll si loosu président de la république Diomaye ak premier ministre mooy dafa am benn ay press presse bi presque presse bi yëpp dañu relayer ni il semblerait que le président de la république ak lu premier ministre dañu am bis bii dañu am problème dañu xëccoo ci xaw ma lan affaire Touba bi ak ay affaire bourse américaine ay et cetera et cetera le commissaire Keita ci euh, live bi muy def ci la néewoon loolu de bu fekkee ni am na c'est très grave ñu ngi toll ci guddi gu nga xam ni bët setagul parce que bu ñu demee ba conflit yu mel noonu di am entre ñaar ñi nga xam ni ils sont au sommet de l'État sa veut dire que aujourd'hui la situation elle est elle est grave elle est dramatique c'est tout ce qu'il ñu woo ko biñ ko dégloo premier jour mu dem wax ci kanamu avocat am maître Sall qui aujourd'hui malheureusement est malade ñu déglu ko la lendemain on lui a demandé l'entièreté de de de de son discours parce que dañ ko xam naa ni saay-saay moo fa jaar les gens de de de Walfadjri def nañ ci ay commentaires ñëw jël as dagit daal di ko teg. alors que teguñu lu jiitu loolu bi mu ñëwee indi euh, euh, vidéo bi ñu mu def ko si sur euh, sur clé ñëw indi ko jox ko enquêteurs yi mais dañ ko ni demal sa yoon déglu nañ ko am y a pas de problème dañ ko déglu ni ka demal donc ñun pour ñun ça fait deux semaines quinze jours maintenant pour nous c'est fini mais tey comme moom il est signataire de la plainte contre Oumar Diagne man ak moom ñoo ko signé ak Serigne Ba Modou Bara Dolly il est signataire de set marche de cette lettre d'information pour la marche d'aujourd'hui démb ñoo àndoon def enquête Grand Dakar donc pour ñun tombé mooy waral ay gaaf est-ce que c'est pas pour euh, vraiment euh, parce que les gens ont eu la volonté aujourd'hui de marcher heureusement sax ba nga xamee ni on a rencontré des gens yoo xam ni très très truc yoo xam ni euh, côté force de sécurité et de défense yi xam ni ils ont été compréhensifs mais tout le monde a vu à travers les images que vraiment li kenn mënu ko arrêter avec des bras c'est pas possible on nous donne des arguments de, de délai. On va déposer, on va redéposer, Inch'Allah Ta'ala, dès lundi, on va redéposer une lettre d'information pour que, auprès du préfet pour encore reconduire cette marche. marche. Tant que Omar Diagne ne sera pas démis de ses fonctions, nous n'arrêterons pas de, de, de, marcher, nous n'arrêterons pas de protester. Parce que Omar Diagne, ce qu'il a fait, mais c'est plus qu'injurier des gens. Euh, euh, comment euh, ma ba yóbbu ko ñu yóbbu ko ci fii ci euh, cybercriminalité mais moom li mu def moo raw saaga parce que nit ki boo ñëw janook ay di dëggaate ay pas ay des millions de personnes mais saaga mënul weesu loolu le président la République il est garant de la cohésion nationale il est garant de l'unité nationale et yaakaar naa ni li gën a garaaw ci àddina mooy attaquer des gens ci seen gëm-gëm ak ci seen pas-pas li ma bëggoon moom mooy euh, depuis combien d'heures yéen a ngi fii maanaam ñaati waxtu ñu ngi koy entendre boobu léegi. on est là depuis à peu juste après 15 heures là à peu près vers 16 heures waaw maximum 16 heures waaw. ndax ay avocat ñëw nañ pour assister. avocat am dafa dafa dafa il est waaw maître Amadou El Hadj Amadou Sall la te dafa dafa tëdd dafa dafa feebar woo nañ ko mais dafa feebar. kon tey amul benn avocat bu ko assister benn bu ko assister voilà. non ñun amuñu nekk fii ñun du ñu ay xalel ay magum jëmm lañu suñu avenir bi ngi suñu ginnaaw duñu ñu ñàkk fayda ñu def loo xam ni euh, ëllëg ak si biir dañu fiy jóge suñu ay doom léegi ñu jóge fii euh, ñaanuñu yàlla gàtt fan noonu mais xam nañ ni li ñu dundoon dootuñu ko dund donc dara duñu jaral ñuy ñuy vendanger ñun suñu dignité nous nous ne reculerons pas ça moom il faut que ces gens là le sachent il faut qu'ils savent que ñun dañu décider pour taxaw faire face si la jeunesse sénégalaise ne veut pas faire face nous nous allons porter ce combat parce que réew mi dafa am nu mu tëddee ay ay nit yoo xam ne dañu jógee fale ci àll ba benn ku mel ni Oumar Diagne mais lan dañuy croiser les bras mu taxaw di di saa ñuy ñuy saaga suñu sëriñ ak ak ak ak di leen xas di leen taxer de trafiquant ah de blanchi des gens qui blanchissent de l'argent ah di wax ay ay ay ay maanaam ay ay signe maçonnique moo nekk suñu juma ça veut dire que nous des francs Hein Mais nous nous érigeons contre ça. La démocratie au Sénégal, la marche des, des, des affaires dans ce pays, nous avons droit, nous sommes des Sénégalais. Hein Quel nous nous C'est peine perdue. Si on essaie de nous, de, de nous, de nous truquer, ils n'ont Mais au moins les gens sauront que nous, nous avons été des martyrs de ce peuple. Voilà. Mais on ne reculera pas. Donc, il faut qu'ils le Voilà. voilà. situation, tu as un message pour lancer le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais n'a qu'à se mobiliser pour faire face à ces gens. man wax naa leen ko waxaat leen ko boo fekkee da nga diggee àddina ak li ci biiram jël ay engagement yoo xam ne mënoo ko respecté ba yàlla def teg la ci ci nguur lépp looy jéem a def lu dul fexe ba euh, euh, euh, respecté sa ay engagement mais nekkuloo ci yoon bu fekkee nag yow da nga bëgg da nga bëgg vraiment peuple bi adulé la teg la ca kaw la nga waxoon démb ak bërki démb ni moom ngay defal askan wi da nga koy def ñii nag li ñu gis mooy li ñu waxoon yëpp mais ba ci principe yi waxuma sax ay waxu économique ay mburu mu cher ak ay ceeb bu cher ak ay yu demee noonu waxuma sax loolu mais des principes élémentaires des principes de démocratie yoo xam des engagements yoo xam ne ñoom jëloon nañ ko institutionnel et tout et tout et tout ils sont complètement de taxaw na le dégg ngeen xale boobu doon wax ay waxu dawa bi ñu waxee ay waxu euh, comment dirais-je appel à à candidature pour les postes qu'est-ce qu'il a dit il a pour des chefs de quartier et cetera et cetera il nous nargue fiche de nous c'est ce qui n'est pas acceptable des gens qui étaient là bërki demb ñu leen gis fii ah ñu ñëw tey taxaw parce qu'ils sont au pouvoir ils veulent faire ils veulent faire un truc sur nous jaay doole loolu du jàll. Sénégal c'est un pays de démocratie et ça restera un pays de démocratie voilà Amadou Moustapha Gaye laa tudd voilà. jërëjëf mu nekkoon kàddu yi nga xam ni euh, moom moo ko yëkkatee Amadou Moustapha Gueye kon ñu fàtt leen ne waxtu wi ñu wax ak yéen euh, fii si doonu euh, tribunal ñoom ñoo daal di fas yéene rek déglu ki nga xam ni moom mooy l'ex commissaire Keita bi nga xam ni kon ma fàttali leen ne jotoon nañ koo convoqué convocation bu njëkk bi fii si tribunal ñu daal di koy bàyyi mu ñibbi ndiki tey ji tamit ñu daal koy wooluwaat gannaaw nag ba procureur Euh, wala ba dig sax daal di santaane li nga xam ne mooy convocation boobu noonu kon waxtu wi jàppale ne moom commissaire tam ñu ngi koy déglu euh, sans la présence de ses avocats kon waxtu wi amul benn avocat boo xam ne nii daal na koy euh, daal na koy assister ndax bu ñu sukkandikoo si kàddu yi nga xam ne naataangoom bi wax na ko l' avocat maître Malick Sall kon dafa donc dafa absente dafa tawat loolu moo waral teew donc dañu toppal li nga xam ne mooy xibaar bi ba xam fan